asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu bàyyi xel dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel cinquième édition foire internationale bu Kaolack tey nag xibaar yi dañuy ñëw ak yéen ci concours didactique bi nga xam ne amal nañ ko fi mu doonoon jongante yoo xam ne dañoo taan noon ay lycée ndongo yi doon ko amal mu jëm ci wàllum xam-xam ñu ko doon amalee fi nga xam ne moo di ci foire internationale bu Kaolack ginnaaw waxtaan woo xamante ni ay lycée amal nañ ko ci ay thèmes yu wuute. loolee lycée bi nga xam ne mooy lycée franco arabe bu Sing Sing nekk ci kaw lag ñoom ñoo jël raw gàddu gi waaye nag li nga xam ne moo di jongante bi am na lycée sax boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ca réewum Gambie nekk lycée bu Sénégal ñoom it bokkoon nañ ci li nga xam ne moo di concours didactique didactique bi. mbokk yi ñu ànd teewlu ki nga xam ne moom moo di Alfred caw di jiite woon jury bi ci concours le ci kàddu yi nga xam ne taataan nañ ko ci moom. Premier. Premier. Premier. Lycée. Franco. Franco. concours bi lañ ci sasoon li ñu ci sasoon yaakaar naa ne mëtali nañ ko ndax danu bi thème bi ñëwee dañ ko seet daal di koy mool pour école yi yónnee ko ci école yi ah ñoom ñu daal di tabax seen première production ñu daal di corriger jël ci cinq. juróom juróom yooyu dam leen doon natt tey ci juróom yooyu jël nañu ñett ñoom ñooy euh, am récompense ñi ci des dañoo am lot de consolation kon nag cérémonie aussi de finale a ah, président Mboup mi ngi fi woon iya mi ngi fi woon établissement ñëw nañu kon nag mën nañu wax ne daal euh, alhamdulilah rabil alamin alors ñi ma doon jàppale mooy sama collègue autre membre du jury maa ngi leen di gërëm di gërëm aussi euh, la chambre de commerce di gërëm la foire di wax ne kenn gañewul kenn pertiwul ñëpp a gañe ñi nga xam ne gañe nañu se l'école ñi nga xam ne gañoo ñi gañewuñu aussi boo participer rek comme gañe nga mu nekkoon Alfred Thiaw mi nga xam ne moo jiite jury bi di concours didactique bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal fii ci foire bi mbokk yi ba léegi ci ginnaaw concours boobu am na fitness show boo xam ne amal nañ ko mu jëm ci wàllum tàggat yaram ñu invité ci euh, ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci fànn googu ci wàllum tàggat yaram fii ci esplanade bu kër de ville bu Kaolack ñu amal fii fitness show ci teewaayu kilifa yoo xam ne rafetlu nañ ko lool ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi. ndax tàggat yaram dafa am solo lool ci am réew rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi waaye it mag ñi am na solo ci ñoom ndax dana xeex euh, li nga xam ne moo di yenn jàngoro loole moom moo tax euh, ñi nga xam ne ñoo organisé foire internationale bu kaw Kaolack tànn fitness show boobu ñu amal ko fii nii ci foire bi. mbokk yi ba léegi ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel euh, cinquième édition foire internationale bo Kaolack bés bi nga xam ne moom lañ jagleeloon impôt et domaine seen service bi nga xam ne moo nekk euh, ci Kaolack amal nañ waxtaan janoog ñi nga xam ne ñoo doy askan wi waxtaanee ak ñoom ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum fiscalité loolee nekk euh, loo xamante nii dañoo nemmeeku ne askan wi am na ci ñoo xam ne xamuñ li nga xam ne moo jëm ci wàllum fiscalité te it maîtriser ko bu baax a baax loole moom moo tax ñu tànn thème boobu waxtaan ceeg ñi nga xam ne ñoo di Kaolack waay rawatina ñi nga xam ne ay exposant lañ nekk fii nii ci foire internationale bu Kaolack ci fànn googu dañ ciy teewlu ki nga xam ne moom moo di Mouhamadou Mansour Biteye nekk inspecteur des impôts et domaines ci service euh, fiscaux bu Kaolack ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci boobule ndaje. à travers euh, centre des service fiscaux de Kaolack daf fi am benn centre si euh, fii ci FICA bi. pour partager waxtaan ak contribuable yi seen wareef sur le plan fiscal euh, et domanial et donc euh, tey jii dañ ne woon bu ñëwee dañuy toog ñoom euh, wax ci benn thème thème bi promotion du civisme fiscal lañ jàpp ni moom moom lañ moom la ñu waxtaanee tey tey boo xoolee réew mi ñu nekk si fiscal xaw mu demee noonu trop demeewul noonu trop parce que boo xoolee tey ñiy respecté seen obligation fiscale contre ñu ko defee comme ni mu waree boo xoolee euh, demul demeewul noonu donc loolu looloo tax ñu organiser tey cette journée pédagogique pour waxtaan ak ñoom ne leen leen kat ne waxtaan ak ne leen kat euh, nañ ñëw ñu informer leen seen obligation fiscale li ñu war a def waaw que ce soit en matière d'impôt en matière euh, foncière cadastrale et cetera donc bu ñëwee tey ji gis ngeen tey waxtaan bi nu mu demee ñoom posé na ay question ñu si bëri am na loo xamuñu ko woon tey leeral nañ leen donc yenn erreur ñu def ñàkk xam pense que duñ ko defati waaw objectif bi comme ni ma ko waxee sànq ci français mooy lan mooy jéem a euh, xeex un peu euh, bi population bi ñu si bëri am bokk si bëri boo xoolee tey boo nee impôt domaine ñu bëri dañu xaw a ragal waaw te te ñun wax naa ko sànq duñu administration boo xam ne administration du boo xam ne suñu administration exclusivement de répression de réprimer les infractions à la législation fiscale c'est pas seulement notre rôle nous avons mbokk yi ba léegi ci xibaar yi ci jotaay yi nga xam ne amal nañ ko fii nii ci foire internationale bu Kaolack bokk na ci euh, service bu poste ci jotaay bi nga xam ne ñoom it amal nañ ko doon waxtaanee ci innovation yi nga xam ne mettre nañ ko en place mu jëm ci mboolem yi ngir jàppandal leen li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñoom muy li nga xam ne moo di opération post fépp di innovation boo xam ne indi nañ ko depuis daaw. loole nag ñu waxtaan ceeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ak taxawaay boo xam ne war nañ koo am seen diggante ñoom ak li ñuy xaar ci service poste bi nga xam ne yemul ci yónnee lettre rek ak recevoir li nga xam ne moom moo di leetre ci fànn googu dañuy teelu ki nga xam ne moo di Baya Fall di directeur marketing ci euh, service euh, post ci kàddu yi nga xam ne taataan nañ ko ci moom. dañu fi ñëwoon tey Kaolack profité wu ci ci foire bi foiru Kaolack. mais aussi euh, ñu dérouler suñu programme d'action ndax dañu am benn programme bu ñu initié woon depuis daaw tuddee ko opération post fépp donc ñun ak yéen loolu ci loolu lañ profité ñëw parce que foire bi tey euh, xam nañ ne ñi fiy ñëw bare na ci wàllu industriel ci wàllu entrepreneur ci wàllu commerçant ak yooyu ñu ne donc bu ñu fi ñëwee indi fi sunu stand am fi sunuy produit ak service danañu mën a permettre ñu jokkalante ak ñooñu ñu gën a xam ñun post li ñu def ci wàllu innovation ndax nekkatul tey poste courrier poste lettre rek wala poste mandat dafa nekk poste service yu bees la ñu fi indi partagé ak ñoom muy poste cash di carte prépayée nga xamante ni soxal na commerçant yi soxal na industriel yi soxal na fonctionnaire soxal na médecin soxal na ñëpp ak jot naa si bi nga xamante ni c'est un service de transport et de livraison de marchandises bi nga xamante ni képp kuy jënd bagage wala kuy yónnee bagage di commerçant wala leneen da nga ko soxla pour transporter tes tes marchandises mu nekkoon kàddu yi Baya Fall di directeur marketing euh, bi nga xam ne moom moo di euh, poste mbokk yi ñu dugg ci biir foire bi nemmeeku ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, visiteurs yi wala ñi nga xam ne ñoom ñoo di jëndkat yi ñu gis ne foire internationale bu Kaolack lu am solo la ci dëkk bi tey nekk na période boo xamante ni Kaolack dañ ciy gis seen bopp waaye remercier ki nga xam ne moo jiite chambre de commerce bu Kaolack di le président Serigne Mboup ci initiative bi waaye taxawaayam. jëmee ci li nga xam ne moom moo jëm ci Kaolack ak ni nga xam ne noonu la ñuy suqalee koom bi ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne tataan nañ ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di visiteurs yi. non neex na neex na trop am na intérêt na wax dëgg yàlla euh, parce que gars yi ñu gis suñu bopp daal. waa parce que tey jii li nga xam ne ni mënoon koo dem jënd ay région wala nga dem si ay yeneen pays di ko fa jënd mais boo ñëwee fi da ko fiy fekk euh, wax dëgg yàlla ñu si siy kontaan bu baax waaw. bi la waaw vraiment baax na trop. parce que ñu ngi ciy bopp daal ñun jigéen ñi parce que am na loo xam ne tey soo ko bëggoon a jënd di nga paas euh, di dem ay kilomètres kilomètres di ko fa uti mais boo buñ la toogee ba ñu la sa région da nga kontaan bu baax a baax te wax dëgg yàlla mi ngi ñuy arrangé nañu am na ñoo xam ne ay doomu kaw la quoi lañ ñu ngi si biir foire bi di di daan seen doole pour di si gagné loo xam ne ni na leen mën a dimbale ëllëg. ah foire bi de ni ma ko gisee dox na lool fa tabarkàlla macha allah ndax lépp loo bëgg mi ngi fii pré bi ko daan jëndee Dakar boo dikkee fii dañ la koy xaajal ñaari yoon jaay la benn bi te foire bu mel ni Serigne bu def ko fi lii dafa baax sax ci kawlax day dekkal kawlax di naatal kawlax ah déet foire moom mënu fee ñàkk dafa dundal dëkk bi xam nga at yin ko fi def yëpp dëkk bi day dund ndax ngi génn bitim réew daa bari lu ma téeméeri réew ak nangam di fi daje kenn ku ne indi sa marchandise xam nga loolu loolu mun tam ci lu du foire loolu foire rek lay mën a am moo tax sëriñ bu mi nu ko fee doo koy gërëm di ko sant te di ko xamal am na lu may dégg nag li may dégg mooy bëgg na mais du ko bu ko bëggee kenn du ci yootaan ndax ko gis nañu defar faar bi bu yoree dëkk bi yor mairie bi dana defar dana defar Kaolack. macha allah neex na et puis c'est intéressant wax dëgg yàlla am mi ngi jàppalee jàppale Kaolack waay. ay karité cuub gis nga ma nii cuub laay laajte fii laa koy jëndee chaque année ak karité am nañ goowee. ak yeneen produit alimentaire c'est intéressant daal. baax na yàlla na leen yàlla jàppale ci barke Cheikhul Khadim am na organisation de vraiment parce que gisuma fi sàcc gisuma fi agression gisuma fi dara te ñun loolu la ñuy wër prix yi c'est abordable ah vraiment c'est abordable c'est abordable. mbokk yi kàddu visiteurs yooyu nga xam ne taxtaan nañ ko ci euh, foire bi moom la ñuy tëjee xibaar yi nga xam ne moom lañ leen indiloon euh, tey jii santaat leen bu baax a baax gërëm leen ci ànd ki ngeen àndoon ak ñun. dig leen daje ëllëg incha allah ci yeneen xibaar yu bàyyeekoo fii ci cinquième édition foire internationale bu Kaolack jërë ngeen jëf.